nit ñi xamuñu woon ne da ngeen a jote hmm. dexu nañ seen diggante jubóole nañ leen jubóo nañ macha allah Cheikh Bara ñu jeexale ci mbirum Bougane waaw loo jàngate mbiram moom daa mel ne commencé ni leen sanal sonal de mu ngeen jël ko tëkk ci hmm. defoon nañ ko ku mel ne Ousmane Sonko ndax li ko jàpp dañu wax ne dafa dafa ñëw bëggoon a forcer baras hmm. ñu ne li mu def dafa jaadu tëkk ci fekk man la toon daaw nañ gis Ousmane ko def mas nañ ko dégg mu jege Ziguinchor ne dafay def caravane pour dem bu demee boo xewee day wutali palais te boobu ñu bari dañoo taxawoon fii ne leen sañ na ko quoi ngeen nangu loolu Sonko te nga yow da ngaa bi xuloo <laughs> déet même pas laaj rek da ngaa tàmbali naan nangu loolu ko nga damay fàttali rek bëggaan affaire bi compliqué wut hmm. bëggaan dafa jóge fii hmm. na day dem Podor hmm. Bakel maa ngi leen di mastaw bu baax waa Podor ak Bakel yëpp. ndeysaan mat na ko mais li dul yoon. te yow Mouhalim xam naa ne yow doo ko cautionné. Hmm. mooy président de la république. bu doon màggalu Touba la muy siyaare ji sëñ Mountakha nga tànn même jour bi muy siyaare ji même heure di demandoo ak moom est-ce que di nga ko cautionné. waaw de inspiré puis républicain moom mees na ko maa ngi jàpp ne loolu mënut a demee noonu. en tant que ak pouvoir. Hmm. Hmm. ab opposant ak opposant pouvoir ni mu demee. Hmm. nga bàyyi ba président nekk Touba di siyaare nga ñëw fekk ko fa da nga ko nangu. mooy li ma wax rek ma en tant que républicain moom lu mel noonu ma est na ko éviter. baaxul. Hmm. Bougane dafa bàyyi ba ba nekk nekk Podor. Hmm. nekk nekk nekk nekk euh, nu mu tuddati sax. Bakel Bakel. di defi activité am. Bougane jóg ne da ko fay fekk. président bu nekk ci kaw tiimam tiima tiimam suuf defal ndànk rek ma ñëw mais président ci kaw la ne woon déedéet defal ndànk rek ma ñëw hmm. bu doon loolu rek doy na sëkk maanaam bu doon Touba siyaare ji sëñ Muntaxa sax waroo tànn bis bi président tànn ñaari nag demeewul bokkul waaw dama lay bu doon Touba dama laa bëgg wax kay Touba moom moo gën a neex a daje xanaa hmm. ñaar buñu mënee bañ a daje moom daje Touba moom xanaa ah, kon kenn waru koo bañ daje jàmm daje jàmm fa yendi dajab jàmm la dajab jàmm la waaw pourtant kenn mosoo gis président dem Touba ca bis ba ab opposant di ko fa fekk waa woon gii président da cay dem opposant yi di ca dem mësoo gis président dem fa ab opposant fekk ko fa Kawlax gii dañ fay dem dañuy dem Poroxaan di dem fépp mës saa bu président jàppee bis opposition bi jàpp nañ beneen bis ca Senghor ca Abdou Diouf ba tey wax ma fenn foo mas a gis président nekk ci benn dëkk ab opposant di fa dugg Bougane ko njëkk a def te defoon na ko Macky Sall nekk Macky Sall jëm jëm jëm Fuuta mhm. mu dem Ourossogui xam ne Macky Sall ngi ñëw Ourossogui mu jiitu ko fa toog fa. tibb tànk ba woon. Ousmane Sonko woo ko téléphone ne ko yow dégg naa yaa ngi ci côté Fouta mu ne ko waaw mu ne ko foo nekk loolu ko nettali ah, waaw nekk mu ne. maa ngi maa ngi Ourossogui mu ne ana Macky Sall mu ne ko fii lay fanaan si. Hmm. mu ne ko kon génnal bu la fi fekk. Hmm. dégg nga. Hmm. tibbub tànk mooy nit ku dox ba romb la nga ñëw tibbu tànk bi. Mm. waaye lii mu doon def jomaay lii jàpp tànk la du tibb tànk buñ d'accord ci leen def ak jàpp da doon jàppi tànk waaye nag àggoon na ci tëj xaaral ma ñëw rek mm. ku ne xam na ne Bakel mm. dafa nekk maanaam frontière u Mauritanie frontière u Mali Mali ñu ngi ak seen i jihadiste tey jii maanaam haute surveillance de armée Sénégal sous sous sous surveillance euh, sous euh, surveillance armée dafa nekk daal sous surveillance militaire. militaire foofu noonu. conseil sécurité militaire bi am par. jeudi defe naa par lundi par lundi. fa lañ ko am lañ koy defee léegi parce que foofu la armée bi def seen tànk. Mhm. waaye waxuma président de la république de. waaye fu armée nekk di ko surveiller. Hmm. nga yor sa kaar kaar yu ñuul bëgg a dugg. rek pour des raisons de sécurité loolu xel nangu ko. rek rek laa wax man loolu rek doy na sëkk beneen beneen problème. ñaareel bi ci des mooy policier bu yaru gendarme bu yaru boog ne la nii ba nga taxaw hmm. ne la ah monsieur nangam ak nangam ak nangam xanaa sax nga ne ko ah maanaam maay respect seyof <laughs> lu tax nga bëgg maa waaye sa sa sa sa supérieur moo la ko digal <laughs> nee ko damay waaye nga xam xam nga bëggaan daa tàmmi saaga <laughs> dégg naa ñi muy liggéeyal loolu ku nepp yëpp mu daggal law saaga naan daa yaakaaroon ne ay doomam la nekk ci côté bi. Diabo Séré Bakel. waaw Bougane Séré Bakel waaye yaakaar naa su Séré ji bàq yaa gën a jege bàq la ci moom fii ne <laughs> léegi nag deuxième troisième problème bi mooy yow haute surveillance militaire nga ñëw nag ne da ngay yor say oto comme si que rien n'était damay dugg nu mu ma neexee. treize véhicules. waaw treize véhicules. selon gendarmerie. fekk boo duggee président ci biir garde président yaa ngi ci biir troisièmement gendarmerie kar na la nga ne taxawoo continuer bi mu dawaatee ñaari kilomètres gendarme yi def ci kaw tali bi taxaw hmm. bi ñëwee mu xam ne lii mënut a dawal oto bi foncé ci ñoom mu gaaree oto bi gendarme yaa ngi rang mu ne da leen di bët continuer dox dem gendarme yi ne ko doo fi jaar mu ne ak dee def na fi jaar waaye yi tooñ yi yëpp ku koy dajale ba di mucc nag hmm. mais est-ce que tey booba comme euh, président euh, jamono jooju la man waxuma président ma ngi ci kawam mi ngi ci suuf waaye ma nga bàkkeel mais en tant que opposant ma nga bàkkeel waaw ma nga bàkkeel moom ma nga fa woon ci li ñu boobu bàkkeel dafa nekk ci surveillance armée waaw ah. bi muy dem gendarmerie kar nañ ko avertiser ko hmm. mu lànk ñu karaat ko nii bëgg mu wàññiku mu ne moom wàññiku gi ak dee la yemal da leen ni bëtt ñoom continuer dem bàkkeel léegi loolu lépp buñ ko boolee lii ma tudd lépp ay tooñ la. waaw ah, moom sax moom sax du mën a arrêté leen ma. ay tooñ la yuñ mën a teg baaraam moom sax mën arrêté leen xam nga loolu xam nga fii li nga wax ni moom police bu la nee jàppee Ousmane Sonko gendarme bi ko jàpp man daf maa wax hmm. gis nga biñ koy jëli ñii hmm. la def kan koy jàpp biñ koy jàpp moom ci ajuma joojee ñu koy dugal kaso hmm. wallahi moo ma ko wax de mu ne ma ko gën a teey sonk gën koo dal gisuma ko moo wàccal boppam escalier yi dox ba ci kii bi mu taxaw def nii ay loxoom. Hmm. ñun ñëpp taxaw kenn ñemewu koo laal. Hmm. mu jékki-jékki di jil boppam porte oto bi ñu ngi may dégg dañu ko jëli woon ñu bari lañ xam naa ne danañ danañ ko dégg. Hmm. duggal boppam ci oto bi toog daal di def. téye loxoom. waaw nii ñoom ñu daal di dugg daal taal dem ak mu man sunu loxo laalu ko. ba ni mu yàggee koy jàpp mu ne ma sunu loxo sax laalu ko. daf leen la laaj da damaa nekk ci état d'arrestation ñu ne woy mu jóg taxaw. dugg dem. doxal boppam ba ci oto bi ñoot di buntu oto bi dugg toog mu taal yóbbu. waaw ah, xam nga Cheikh euh, léegi nag bu leen ne Sonko da daan nangam Bougane da daan nangam Sonko dañ daan ñëw buntu këram baaree ko ne ko doo génn kër gi tey. Hmm. est-ce daa mas a gis mu jël loxoom teg ci kaw gendarme. ah mosuñu ko teg gëdd mosuñu ko teg gëdd moom. kenn mosut a gis mu yëkkati loxoom bugaan nag daa ñëw buux gendarmerie ne day dem gendarmerie bu la bëggee dugal ci oto nga lànk ba nga xëccoo ba sa mbubb xotti ko kooku rébellion la. waaw ah, léegi xanaa bu ñu d'accord ci lii li nga wax nii ñuy wax mën nañoo xam ne li nga wax nii lu xel mën nangu la. Ah, mais xanaa xanaa nangu nag kon nag ndax jëroon na yóbbu en tant ñu war a tàmbali campagne te gis nañ ne vraiment itam moog ñu fi nekk xaw nañoo ñagasoo nga waaw waaw dama ne est-ce que jaroon na yóbbu kaso. du tête de xam nga moom bi moom topp Sonko ko ci yóbbu <laughs> Sonko moo nekk un xam ne un bi mënut a nekk mu dem jël ñaari un muy onze. <laughs> nee na nee de moo moo bindal boobu onze bi. nee moo jël kayit bind onze onze am. waaw parce que ne parce que Sonko moo jël ah. moom Barth jël na ko. Ah. jël ñaari un. ah kon topp na Sonko a def ñaari <laughs> mooy Sonko bu Bambey. te. léegi nag Bougane moom daa tooñ. Mm. wax dëgg yàlla. bu tooñ nag dañ koy yar ndax maison d'arrêt et de correction loolu lañuy ñuy wax. Mm. màggaluk Tuubaa nag laa waxoon Bougane ne ko yow sa yar yara di ko gii ma gis ci yow. Mm. a ngi lay yar. Bougane waaw. màggal gi jàll. te damaa jàpp lii ko dal yéene wu ko de. ndax am nañ ak wëllëre maag moom mm. waaye xam gis naa ci moom xamadi goo xam ne mm. lii njëlbeen la waaye du mujj jot nga na bu gënee dana sensé te ku réew mm. yaru for ko xam àdduna te xam yàlla te yaru xam àdduna xam yàlla te yaru xam yàlla te yaru xam yàlla te koo war bu wér a wér a xam yàlla gi mooy nangu nangu dogal suñu yàlla maanaam yàlla amuk ta amuk tawhid ci boppam tuuti nag la akuk dal nangu dogalu suñu borom yàlla boo ko ragalee mm. da ngay am sakina ak dal bu mm. la dala dina mm. xama dina te loolu moom bu nekkee ci nit rek ñaareel da mbëkk ëkk goo xam ne ni doo ci génn maa ngi lay sant